Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info sabar saa ngeen war xaar boo demee Daaru Musi boo demee Touba boo demee Ndakaaru boo demee Kaolack boo demee Ndar sabar saa yelwaan sabar su noo yelwaan sabar saa yelwaan sabar su noo yelwaan sama xarit nga sama si loo xew lu xew xonq nga ak doole ak ci naaj bii nga toog soxna si yow dañuy lu xew ak say xonq damay dox ñaxtu doxu looy dox loo naqari ci réew Maksal Sall lu mu def moo ma naqari. lan la Macky Sall def oto yu mu téye. jógal taxaw jógal foofu woon dem ba Macky Sall téye oto yi. ma bëgg a dem seeti sama jëkkër ji Macky Sall téye oto yi. waaw ah. gisuma ñetti weer ngi ne gisuma sama jëkkër mu ah. métti ma nag. Ah. may dox di ñaxtu dox sol sama yu ruus pare pour mu gis ma. waaw loolu la loolu la Macky Sall daal lu mu kii. ma ne loolu du dëgg di yoon. waaw Macky Sall jël oto yi dem téye leen gisuma sama Lalu ji daaw ba rek gisuma ko ñetti weer ngi ne gisuma sama jëkkër loolu dafa maa métti. yow loo namu sa jëkkër lan nga namee sa lalu te sama yaay ngi nii nee na dem tan ngay namé sa jëkkeur xaar ko xana dulay wo téléphone. suma woyé sama yaay nangu sama téléphone bi da bëgg ta sama sëy bi dama sama jëkkër ji la bëgg. yo fo dëkk ban dëkk nga dëkk Sénégal. Kanda kaw nak la bokku tud Kanda est-ce ci kaw nak la bok Kanda kawul na teel. kawoon si Kaolack. kawoon déedéet bokkul ci kaw nak sal waaw waaw man foofu la dëkk. sa jëkkeur num tuddu Jamil la tuddu Jamil. Jamil mom ban dëkk la dëkk ci dëkk yi. mom Mbour la dëkk Mbour. Mbour waaw fan ci Mbour. Ongkat. Wah, foofu laa bëgg dem su ma sareet sa yee sama yaay nii tere ma nee na dem dama foofu laa bëgg dem man ñetti weer ak ne ndeysaan day ñax ndeysaan ndeysaan wala mu la oui <laughs> <laughs>